n'ont pas le droit de trahir les Sénégalais. Vous n'avez pas le droit de trahir les Sénégalais. quand am lu ko naqari na toog xaar ko na parce que la députation n'est pas une fin en soi pour yéen ñi nga n'est ni fou la députation n'est pas une fin en soi mais bayi len place bi pour ñeneen ñi bu len andil problème ñi nga xamni dañu nekk ci investiture yi ngeen sen bop bopp len sen bop bopp liku bayi xel sénégalais yi nga xamni ñoy souffrir sénégalais yi dund inondation bir Touba ni nga xamni ndox mi dafa nangu sen kër sénégalais yi nga xam ni ñoo nekk ci Sinthiou jam jam joor département de Matam commune de Dabia arrondissement Agnam Sioul village bu nekk ci Dande Mayaw bi sénégalais yi nga xam ni fleuve bi ak taw bi dafa nangu seeni kër xalaat leen ñooñu te fàtte seeni bopp ku ci démissionné wor gedd dara yéen nga sénégalais parce que sénégalais soxlo soxlawuñu lool sénégalais dañ leen a yéene majorité bi motax ñu leen ngeen bok ndey bok bay so leen bokké ndey bok bay ba paré bu ci kenn gedd na ñepp tok xex xex bi parce que nit so jekko da ngay xam ne da nga jekku nak té l'opposition sénégalais da ngay na jekku parce que ñi mënuñu ñi télé nañ ñi télé nañ xamuñu fan lañuy commencé bëss bo liré la stratégie nationale de développement di nga xam ni luñ ca def nga liir PSE xam ni la copier coller la du dañ doon bakko naan fonctionnaire état du Sénégal ño defar sen sen sen sen projet ño ko bind fonctionnaire du Sénégal lañ doon doxal lan moo nekkoon matrice bi lan moo nekkoon mais référentiel bi du plan Sénégal émergent benn la fii mënuñu fi def lu weesu lu fi président Macky Sall teg comme projet comme vision puisque mënuñu ko te comprendre ñu ko mënuñu koo doxal waay waay ngal la fàtte leen seen bopp oui allo. Oh, wala allo oui. oui liñ euh, euh, la woon sànq dafa dogoon daal c'est vrai c'est vrai. si si en fait lu ma bëggoon wax rek di ma ñaax yow rek très rapide pour ne pas monopoliser la parole. tout à fait. man en fait man bu ma xool Sénégal si sincèrement ça me fait peur quoi sincèrement ça me fait peur te image négative en fait ci renvoi mooy toog naan dañu doon maquiller ay suuf Sénégal mooy. qui donne l'impression que, toute l'administration est corrompue, corrompue au sens propre du terme, hein, mm -hmm. corrompue avec, ou avec